jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn xamunu kenn déggunu kenn ku nuru bamba gisunu fenn xamunu fenn déggunu fenn ku mel ni bamba bamba du maasum foore du maasum buura ki kàngam aska yi bamba waxam ja day seet jëfam ja day seet jëfam ja day seet sanga di bamba foo waayam day gëni baayam gëni nijaayam te waayi bamba ku àndul moom dara lu moom yàlla bëggul moom ku dëddu bamba bamba dama yar ma amub yar te taguma bi ma sant bamba ku la fi daaruy bàyyi ku daa fexeeray bana bamba mënuñu laaruy mënuñu laaruy yow yaaruy marhaba bamba man jéemu maaroy te jéemu maaray damay fexe bay taso sa bamba démb amoo maas tey ji maas doo am ëllëg maas kenn nga bamba defar nga képp defar nga lépp defar nga fépp bokkoo bamba saloor ja dem sa coono wey naa ga ñëw naa du jeeti Bamba saw ngaañ rot naa saw tagg jot naa la jot ma kañ la Bamba xare nga fépp dàq nga fépp wasal nga fépp nooyal nga Bamba Kongo ña xam naa Gabon ña xam yomba xam naa ni mbër nga Bamba lambar na xam naa bar wali xam naa baafali xam naa ni um nga bamba ku naa kiriki garam ba saaki kabla saaki ndar xam na bamba ndakaaru xam naa waa pakke xam naa waa doomi xam na ni lëf nga bamba waa dex gi gis naa waa jéeri gis naa waa fépp gis naa sa jëf ji bamba te yàlla gis naa yoneen ba gis naa saxaaba yi gis naa sa jëf ji bamba malaaka gis naa jinne yi gis naa gaa yépp gis na sa jëf ji bamba teg nga sa tànk bile fu nekk ngir sopp rekk yoneen ba Bamba def nga lu nekk wax nga lu nekk daj nga lu nekk ngir yàlla Bamba daa nga musum ñaax ba ngay musum ñaax amoo lu dul ñaax boobale Bamba génn nga say kër bàyyi sa waa kër di saytu sab cel rekk Bamba def nga ko ay aata tawatu yit giñ naa ni ab sang bamba dëkk ki soldaar di bind ay waat yooyale soldaar def nga ko bamba te ba ñu daawaaj ak a fexe ngay jàpp kay waaj di julli bamba ñuy naan kay nga ne ci saw di aw ci saw yoon pat bamba ba yàlla xëy la dindil la loola fajal la sant Bamba dee nga ba dekki dox ba jekki yow daala tekki tekkul nu Bamba sa ngor gi rey naa njullit gi mat naa sa fit rey naa naw naa la bamba sa jëf ji rey naa sa jëf ji mat naa ñépp gërëm naa sa jëf ji bamba yàlla gërëm naa yoneen gërëm na ku gërëm na sa jëf ji bamba gërëm nga yàlla yàlla gërëm la yoneen gërëm la wàcc nga bamba génn ci mbir te jox biri nga saytu biri moo dese bamba loo tere sànneef loo digle songeef foo nekk nekkeef li gëne bamba jox naa la saa saytul ma saa mbir maa bakkante dim noon àddina dim noon saytaana dim noon musal nu bamba te moona bànneex ki tax ku daa baax xëy ñàkk ak mbaam mu gufu Bàmba yow not nga say noon dàq nga say noon jàpp jàpp nga say noon tëj faaw Bàmba notal sunuy noon dàqal sunuy noon bu gisib noon mukkati Bàmba fetal nga say noon ba dàq say noon ba woo ci saw luy doge Bàmba sa tox bi ñor na sa mbay mi ñor na sa jaaj bënn na sa fe nga bamba daane nga sawraab dëgg nga saydu tabax sa teenub robina bamba jekki di waxtaan mu di la ñeetaan nga di nu reetaan nga dese bamba jot nga bisi mbeek ak jamonoy jaag sàkkal sarax naak su yéene bambaaj ngir jëm yàlla ak gaay yàlla yaa topp yàlla sarax nu bamba sarax nu ab tibb nag baate ay tibb baa junni bii tibb tibbal nu bambaaj tibbal nu asdaab yow baate ay laa baa junni bii daab yàkkal nu bamba fabal sa jàmm te fab sa jàmm nu ñu ko yomb ngir yàlla bamba subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin jërëjëf